yaa ngi dégg du ñu won dañ leen mere yéen ndax dem gi ngeen demoon ci Macky Sall leen leen dëgg-dëgg mën ngeen yorum réew loolu kenn nattaliwu waaye ñi ci des barke alxuraan ko dem Sonko mii wàlluw la man de ragal naa ko man de Serigne Ndiaye bu na Ousmane Sonko na ma baat parce que maa ngi doog a gëm ne Ousmane Sonko wàlluw parce que Sénégal gépp koo wax danaan la Ousmane Sonko maanaam moom la ñuy xaar pare parrainer ko léegi tamang ca kaso ba jàmm la ma ne Sénégal ndax lii jàmm la léegi Sonko ko ca kaso ba léegi ñun ñoo nekk ci terrain pour opposition bi ñaar téeméeri candidat yi ak ñaar fukk menam Idrissa Seck képp moo ci ki nga xamante ni moom la gars yi di parrainer yaa ngi dégg te bala ñu ñoo parrainer dañ wax li taxoon ñu dem ci Macky Sall yaa ngi dégg waaye di kasoona maanaam parce que réew mi moo amutoon jàmm réew mi moo am réew mi moo euh, adduna bi amoon problème xeexu Ukraine ak Russie ba parti bi corona am ci dëkk bi du dëkk économie bi daanu ñu dem pour yëkkati ko ko def diggante moom Abdou il ko mais li wér te wóor mooy Sonko moom moment bii may wax ak yow ñii kenn mënta paree ne yaa ngi dégg opposition bi wala nguur gi pour Ousmane Sonko waaye léegi moom moo ngi ca kaso léegi moom moom téye na parrainage bi yaa ilaha illallah kii moo am doole Sonko bari doole non dëgg moom nañ ko wax rek doole jëpp nañ ci Ousmane Sonko léegi nag Sonko nañu baal ñun ñi nga xam ne ñoo nekk opposition bi nañu baal ngir yàlla yoon te wax ay nitam ñu pare ne ñu sonn nañu ay waay sonn nañu ay waay lii du jàmm waay ay waay diggante moom xeex bi moom Macky Sall ñun opposition bi sax am nañ ci problème ay waay Sonko dimbali ñoom jaay boot ma ne ñoom Abdou Cissé ak ñu dem na nan bàyyi xeex bi nag na nag ñu négocier ak Ousmane Sonko parce que moo yor doole réew mi seet kii di barke alxuraan kon bu bokkoon midi midi midi midi midi laa wax nii bu yeboo ñoom ñu dem tàmbale dem ca pale bi di cible te xam ne jël na nguur parce que ñu nag ku war a jël nguur gi ba pare nag mooy Sonko ba pare nag ñu tëj ko moo tax jigéen ñi mer paa yi mer jeunes yi mer ñëpp mer kër goo dugg ñu téye seen carte d'identité lii du jàmm lii lii kay musiba nar looy sëñ Ndiaye bu nag moom waxtaan wax dëgg da cay bokk parrainage dafa jafe parrainage ci boppam dafa jafe. Serigne Ndiaye Bouna ba tey Talla xel xelkom maa ngi ziare wala ñi topp xelkom xibaar ñi ngeeg Serigne Ndiaye kon Serigne Ndiaye su ma déggee daal mel na ne ñi nekk ci opposition bi ak pouvoir ñëpp am nan problème par parrainage fi ci terrain bi lan mooy problème bi. a parrainer kenn opposition bi pouvoir ci yam léegi loolu mooy problème bi foo dem Ousmane Sonko lañ lay wax léegi loolu mooy problème bi loolu la Sénégal war a taxaw jàngat maanaam Sénégal yi ci boobu Ousmane Sonko lañ bëgg mu nekk président de la République mun comme neex ak comme naqari léegi ki nga xam ne wóor na bu nekk président de bu bu bu nekk candidat di nekk président nga la ko téye léegi foo ko ñun ñi nekk ci opposition bi tey pare na ñun xam nañ ci dara yëf yi wax. di moom lañ doon jokkool noone moom ma nga ca bi ak parrainage bi dafay mel ne nag euh, ñi nekk ci terrain bi di wut parrainage daal fu ñu jaawale rek ñun leen di foofu Ousmane Sonko ma ci kaso ba daal moom la ñuy déglu ndigalam ngir daal fu ñu joxoñ rek euh, foofa lañ jëm kon daal di wérte mooy euh, élection yi ñu dëgmal élection la yooyu 1960 ba tey dana wuuteeg élection yi mos a jaar ci Sénégal dégg ngeen Serigne Ndiaye